sénégalais sénégalais sénégalais sénégalais bëri na ay naafeq yow war a xeex ñu naan manifestation ku fa dee yaay perte waaw manifestation ak dee lan mooy utale manifestation ak dee dañu sori yow bu ñu wootee pour xeex ak sa réew nga ne doo dem te yow sa dund dara jagu si lan moo la ko teg mooy ñu jiite am si ñoo xamante ni loo wax ñu ne non non da ngay xaru bul dem manifestation te bu Wally Seck woote wala Youssou Ndour woote kenn du fa jiitu te ba nga fay dem xeexaloo sa réew yëfu seytaane moo la fa yóbbu boo si deewee lan ngay wax sunu borom si soirée laa jóge léegi nag ñuy woote di xeex démocratie nga ne ku dee yaaf perte naa fekk yu bon yi te ñaari nit suñuy xeex ki ëpp doole toujours yor yeetam di dóore kooku nga war a wax arrêtel loolu mooy dëgg mais doo woo ñaari nit jëf naan leen arrêté leen bu leen taal dëkk bi Ousmane Sonko voté wul sa budget yorul dara si sa réew yorul sécurité réew mi yorul dara lu dul ki nga xamante ni moom la ñu fal faluñu Sonko Macky la ñu fal. léegi nag am na nag répression yoo xam bu ñu koy teg nit maanaam ki yor doole bi nga war a waxal mais boo bëggee ñaari ñëpp nga bëgg leen atte bëgg leen dugal si benn mbuus yow ate wul dëgg mu ngi mel ni xale bi nga xamante ni huit ans la am di xeexal mag mag yor yetam di dóor. tooñ ko ba pare nga taxaw naan yem leen jàmm nga bëgg kon yow li ngay def mooy sob wa ilaa ñaari nit di xeex ere nga àtt dëgg bi waaye nga toog fi nga toog ne da leen di seetaan yow da ngay sot loolu laa am lu may wax yaa ngeen jëf